si loolu waaw je ma présente bon ma la Babs gars yi xam ne ma Babs Buzz. Hmm. moo tissé moom Babs moom bon. Ah il est l'homme de tout quoi. Hmm. soo xoolee bon sama kàkkaat laa gaare fii nii ah. xam nga localité bi yëpp xam nga Buzz ngay dégg Buzz sama terrain yaa ngi fii ti vois maay jaay terrain fii nii xam nga mooy loolu monsieur le maire balaa mu def quoi que ce soit man lay woo. Ah nga xam nga loolu si. macha allah Babs Buzz <laughs> tegal loxo bi mais si loolu naka mu nag. yaa ngi def bella ah bon. <laughs> ça va kon su ah uh-huh. kon gars yi dañoo soxor wax nañ la ne yow rafet. wax nañ la ko. non kon gars yi dañoo soxor. <laughs> merci yow yaa ngi dem gannaaw non ak bon photo man mooy hmm. yëpp koñ bi foo tourné babs babs ndax lan bon alal bi yor naa maa moom man dama yor maani hmm. muy leer way gisee ma lu ma lu ma yor moom xoolal fu ma dem xam ma koy wane hmm. dëkk bi yëpp foo tourné babs bés babs bés babs bés macha allah merci yow tu vois yow moom moom xam nga lu ñuy def wax du bëri xam nga borom xaalis moom du ma fa nekk di këtti kam xam nga man dama laa ba si kanam xam nga terrain fii nii yëpp ma jaay jaay terrain xam nga oto am fa gars yi comme il xam fa tourné rek bon gars yi bon bas bas xool moom moom euh, mu le maire lépp muy def man lay woo xam yow nga rafet ba waa koñ wax nañ la ko. ah wax waa koñ bi. waa koñ dañoo soxor. Ah, macha allah. <laughs> merci. sinon man yow dama laa bëgg ah. dama laa loolu man du ma xaan-xaan seen affaire yi quoi xam ñëw nga ñëw ñu def farata xam nga mooy loolu quoi. vraiment parce que yow boo ni nga waxee moom ku am bër macha allah waaye man man dama nekk koo xam ne moom. ay toog mbedd yi tàmm ma ko mu nekk ci yow kaay ndoxantu hmm? man dox ak ah, foo. man kay xam naa ne yéene nga ma leen yéene nga ma sa alal. parce la des saa suñu dee si maire yi suba suba suba suba gars yi ñoo takk. Hmm. parce que yor naa ko te dama lay jëndal kër may la oto te doo def dara si kër dama doon bindaat da ngay toog rek jàkkaarloog télé bi Assalamu alaikum. Bé, ça va Ci loo ne? Ça va. Gana nga mu? Ci loo ne? Kii nag ñëw teere nii quoi. Gannaaw bi dama ni xamee naa ko de. Ah. Oui. Da nga xam kii. Moom tuddul Babs. Yaa ngi fàttaliku gàmmu bi passé. Borom ganaar yi. Moo ma jaayoon ganaar yi. Moo ma jaayoon ganaar yi. Ah déedéet Babs. Mais Babs. Oui xam naa suñu kaw mu ngi ñëwaat wuy ma dama la ko ñaan rek jàpp ci. Eh, yow ginnaaw ngeen yàqu de. non ah,